الله أكبر الله أكبر booy foo jëm ni booy maa ngi dem jumaa ja pour julli waaw <laughs> booy kañ commencé julli te laa commencé waaw man jaxlewum yow xanaa nga foog ne boo jullee yàlla rek jéggal sa bàkkaar yi nga def yëpp lan moo tax yàlla du ma jéggal mu yow gaa nga fàtte da nga fàtte démb lu ñu ci def maa ngi yëpp booy leen laa bëgg nga xam ko mooy bis ni ki tey dama ib beneen page bu bees léegi beneen nit la boo yaa xam dama julli ji boo man dama bëgg a bàyyi ni ma nekkee nii léegi damay commencé di julli ndax julli yi nga xamante ne rëccoon na ma yëpp yàlla mun ma ko jégal sa waay bu ma fontoo waaye seytaane nga rek booy bu ma waxaat seytaane na loolu neexuma seytaane nga laa la wax bu ma ko waxaat seytaane bu mag nga booy doy na waaye ah booy yaa xam dama julli ji boo jullee tamit taxu yàlla jégal man sa maa ko def man kay waroon naa déglu oustaz bi lu ma waxoon sax oustaz bi na ma ne ma booy tuub ma war a njëkk def mooy di wax dëgg ak moytu sa xarit yu bon yi nga daan booy da nga mel ne wéeroo ma da nga maa bëgg a bàyyi ak liñ fi def yëpp booy bàyyi mën a de xam na laa bañ mu dal ma li yàlla wax ci alxuraan mooy bi nga xamante ne nit ki dana taxaw yomal xiyam di matt baaraamam naan aka neexoon ma bañ a ut diw mu nekk sama xarit loolu rek laay bañal sama bopp koy da nga bëgg wax daal yàlla dina la jégal yàlla nee na wa rahmati wasiat kulla shay yàlla nee na sama yërmaane matt na lépp booy man sa du ma nekk fii di werante yow maa ngi dem est-ce que man bu ma tuubee yàlla dina ma jégal ah waaw boo ñëwee yàlla dina la jégal incha allah ndax yàlla mi ngi wax si alxuraan naan yéen sama jaam yi nga xamante ne yéen a ëppal si def ay bàkkaar bu leen mës a découragé si yërmande yàlla yàlla bàkkaar yëpp la jégale waaw maa ngi jégal nag si si kàddu yi ma la wax nag seytaane yeeg yéen baal ma dégg baax na jooy waa xaar ma xaar ma xaar ma dem jàpp ñu dem julli ji